waa mais Lamine su ma waajee waaw Lamine na mu naal de gaan si loon nekk daa yaa ngi am jaamu baax rek ay suma ay na de si loon nekk nag eh, Babacar Babacar waaw mais nice bàyyi maa ngi si jaamu alhamdulilah waaw gën nañ déggante trop trop trop trop baa yaa ngi am tawfeex bàyyi ci sama waaj gën nañoo déggante trop nag yàgg naa si loon nekk waaw suma waay ji waaw gis nañ déggante trop nag franchement depuis suñu match ba waaye oh, yaa ngi fàttali suñu match bi booy yaa dugaloon bii orzo bi bëgg a door arbitre bi <laughs> tey suma waay yi daa yàgg am fit nag quoi waaye billaay mais yaa si jàmm bu baax am naa trop nag billaay te sam waaj yaa ngi fàttali lu yaga yaga yaga fal ah, bo gat kan? arbit bi arbit bi arbit bi daa commencé woon indi ci koy bu ñu ñoo yaxal ta xam ne boobu dañoo tegoon xaalis lak si kiri lañ doon teg ko ci ya ma gëna xam mais nice ah nice baax baax kay. waaw mais le frère da nak sama sañoon nañu waxtaan tuuti ko xam na lu mu la bëggoon tegal depuis mais vu que bobu tay gisante wuñu déggante wuñu ma ne woon saa bi ñu déggante naa ko tegal waaw bëgg naa ñu waxtaan ci daal waaw waaw waaw waaw waaw waaw yàgg na trop yàgg na trop kay bi nga lépp xam rek yi tey jamono xat-xat yi mooy mooy waral yooyu daal waaw baax na maa lay déglu maa lay déglu acca waaw waaw sama sañoon nañ waxtaan si nag mooy may dégg fan yi ko da ngay takk jabar loolu nag lu baax la man loolu laa lay conseillé waaw te góor bu nekk instant bi nii bu sañoon am soxna si wetam bu koy wétali mais kooku daal nga opté pour taxu ko sama xel dalul si moom quoi sama sañoon mu gën ko gëstuwaat nga xoolaat ko bu baax waaw. mais attends de qui tu me parles Mati mais où est le problème. Euh, mon frère dafa mel ni ndax lu lu bëri da nga am ëmpale si xale bu jigéen boobu noonu. jéem a gëstu nga xam moom mooy kan waaw xale bu jigéen boobu jubul de waaw yéen naa ko sama gaale de defar nañ ba mu neex tamit te man bu ma sañoon booy dugg tamit day dugg fu baax quoi foo xam ne sa kawee mosu fa jaar mais man ak moom moom naa essayer. mais mais Babacar est-ce que li ngay wax est-ce que yaa ngay wax li ngay waxee si matin nii nii nii nii xam nga suñ ko doon waxee sa sœur du neex. saabo booy li ngeen def nii nii baaxul c'est mauvais saa booy xalaataatal bu baax li ngeen def seetaat ko bu baax a baax booy. non moom fële du question dama lay wax di yàq sa xel wala genre non non dama lay wax dëgg yi nga xam ni moo fi nekk te xam naa ni teel teel la c'est pas kon bàyyi ma wax la ko benn yoon man ak moom tëdd nañ te Ahmed Fat Faye petit gars jaar nañ si de kon mieux vaut nga def naa. booy booy booy booy booy baasi yi ngay wax baasi yi ngay wax man booy bi dama ko bëgg dama ko takk de maa si tànk takk ko nag voilà booy bi dama koy bëgg te gisuma lenn lu ma ko mën a tee takk quoi donc arrête ça Babacar. mais sama waa ji yow geen yow xanaa li ma la wax dama ne la booy bi moolul man jaar naa si samay copain jaar nañ si yow nga bëgg ne danga koy takk yow tamit réveille-toi un peu bro da ngay boy bi nee naa la baaxul pour yow kon mieux vaut nga bàyyi ko nga dem nga xooli leneen quoi. boy booy boo dama mel na nga déggul lu ma wax boy bi dama ne la même bu adduna bi yëpp jaaroon ci kawam man dama koy tàgg man mate laa bëgg Babacar mais yéen yéen yéen yéen yéen yéen genre nit yéen jël xale yi yàq leen nii ba pare bëgg leen a sànni comme ay mouchoir agité mais mais réfléchissez quand même c'est pas ça la vie. waaw mais mon frère bu dee tamit da nga bëgg a takk cega tamit loolu sa problème la de yaa koy wéetoo de waaw booy booy bi da ko jàppee comme pute man dama ko jàppee comme jabar chiffon ngeen ko jàppee mais man ndimbal laa koy gisee pour yow booy bi mérité wul dara ci àdduna bi alors que man mooy sama lépp booy bi joxooloon ko benn respect mais man mooy sama lingeer yéen booy da ngeen jàpp booy doxaan leen te vierge leen ba pare dem wëri ñeneen ñoo xamante ne dañoo vierge. mon frère mon frère man xale bi de vierge wu ma ko de vierge wu ma ko de booy doon fekk mu ubbeeku ba tool ni ma Dakaaru njaay daal mosu moom leen daal mu ñëw rek appliqué kon mooy wane yoon bi leer na nañ. mon frère mon frère dafa mel ni comprendre li mu lay wax de xale bu jigéen bi daa mel ni dalal liggéey instant yi déggoo gisoo xale bi rek nga wax mais teel def nank si bagage yi a wax ak yow. Babacar dama bëgg ngeen ngeen respecté sama jabar parce que xam tax depuis bi mu duggee sama dund ba léegi lépp a changé te elle tout raconté wax na ma lépp bi ngay génn ni nga ko abusé yàqal ko addunaam lépp wax na ma ko. tax ma waxuma la ko donc respectel sama jabar loolu léeg laa leen moo ñaan. mon frère mon frère dalal dalal man bëgguma ñu xuloo juste dama bëggoon ñu waxtaan rek entre copains dama xam lépp te su ma xamee lépp te waxuma la ko day mel ni man du ma sa xarit quoi franchement waaw puisque noonu nga ko gisee tamit aca mi ngi noonu de après loo si góobee rek nga gar ko ah. booy bi sax baax na. man bëgg na waaw parce que changé na li sama dund Babacar ni ma meloon démb ak ni ma mel tey dafa wute tout ça c'est grâce a elle booy bee tax ma mel nii tey te xamul tax ma gën ma jàpp ko parce que nekkul jigéen yooyu di fen lépp loo xamante ne dund na ko ci àddunaam wax na ma ko kon kooku elle est sincère avec moi dama ko bëgg ba mu jeex seeni wax yi ngeen wax nag lu ma taxul ma reculer dama ko bëgg un point tout booy bi jàppal ni dinaa ko protéger dinaa ko téye sama ngiru dund yëpp